asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Galaxy TV ñu amaat mbégte ak contentement de ànd ak yéen ci seen ay émission spéciale tey nag ñoo ngi nii fii ci Tivaouane ngir rek euh, waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon ci burdu bi ñëpp xam nañ ni ñun waa Galaxy dañoo topp burdu bi ba jeex ba tey la tëjita burdu bi donc dañuy ñëw rek daa dee waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon foofu ci biir jumaa ji. man Alaaji Ndiaye. moo nekkoon sa taxawaay fii ci gàmmu gi. waaw gàmm gi man maa ngi kontaan lu bëri parce que ñun ñi ñu ngi bokkoo fii région Tambacounda ñoo si si Tivaouane wuyu ji wootee maam Maodo yaakaar naa ne yéen ñi nga ngeen buur fekk la si bis bi ñu sant leen di gërëm wootee maam Maodo yaakaar naa ku ko uy si fii yaakaar naa uy si nga ku jar uy ji waaw parce que yonent bi moom képp koo xam ne ñoo leen sant li ma bis bi hmm? moom moo ne kaay sant la ma bis yonent bi léegi Bamba Thial Kaffrine dakaar hmm? moom daal fépp fu waay jógee daal ñëw fii lay hmm? xam ne wuy ji woote Seydi Aji Maalik mooy ànd fii yéen ne ñi xam ne yéen ñu fi jàppale bis bi ñu ngi sant leen di gërëm leen di ñaanal yàlla ngeen fi yàggaa ñëw yàlla ngeen fi yàggaay ñëw ay déwén déwén di jaay yeneen waaye bis moom daal ku ko gis nii xam nga tey lancement bi la ñëpp xam ne lancement bi la tey la tëj burdu bi waaye gis nga ni ñu toll suba la gamu gi kon yaakaar naa ne li doyna doyna xel waaw tay la tëj burri bi nit ñi tabarakalla waaw mom bëri na trop mom dal li ñuy ñaan dal yaan yaal dimbalé ñu gamu ko ci jamm mu jax ci jamm ñu ci jamm mu kër am benn tolof tolof bi jaay yoon bi sax wante yàlla soxna ci no def ma ngi fi no tuddu awala laa awa tay da nga ñewoon ci tejite burdu bi euh, nan nga gisee tejite burdu bi ah macha allah comme chaque année nu muy mel rek neex na suñu xol sedd na féex na kontaan nañ daal mbégte la nañ àndal. maa liñ fi wax ah, njëriñ na la rek. waaw njëriñ nañu mhm, dégg nañ si ay conseils dégg nañ si daal loo xam ne mun nañoo njëriñ ëllëg. Mhm. yow chaque at dangay ngay ñëw euh, fekkee dañ ne waaw chaque at dañuy ñëw. c'est si yow nag noo tudd. waaw euh, tudd ko euh, kontaan naa torop ci buddi bi macha allah buddi bi neex na torop ñun suñu mbégte lii rek la ñun lii rek lañu am gàmm rek la am daal yal nañu yàlla def dëgg dëgg taaliba Cheikh yal nañ ko yàlla def si bàkk sëñ Babacar. <laughs> macha allah. sëñ bi noo def. maaleykum salaam. tudd. maam nga ñëwoon tey si tëjite buddi bi lan nga ñu si mën a wax. bi neex na lool waaw mbette gàmm gi moom yaa gën a xam. fii nga dëkk ci waaw non non Dakar. ah ok da nga ñëw pour euh, fekkee li nga xamante ni mooy tëjati bu. waaw ñun Koskas lañ nekk xam nga balaa gàmmu gi de avant buur yi dañuy ñëw fii nii Tivaouane waaw yore organisation bi loolu moo ñu fi indi. waaw ah, Koskas loolu mooy seen taxawaay fii ci Tivaouane. waaw waaw loolu mooy suñu taxawaay fii ci dalal gan yi loolu mooy suñu taxawaay. sëñ bi daal loolu la digle ngeen dalal gan ni toppatoo leen. waaw loolu la digle de waaw bu baax a baax bu wér.